mi nga xam te ni moom mooy maire Sandiara teg le plan Sandiara émergent gis na résultat yàgg nekk ministre de l'industrie waaw parce que moom loolu la mais beneen bi aussi euh, moom mooy euh, li maanaam wàllum équité bi ñu ñen ñi di wax si wàllum territorial euh, si wàllum territoire beeg maanaam région yi ñu xool fu nekk ñu jëm ko équilibré yenn saa sax li sëñ Mansour wax si kër diine yi mm-hmm. ñu xool maître Abdoulaye Tall la bokk waaw nañ ko si boole équilibre yooyu tamit gis na ne par exemple booy jël am na par exemple dans le sud du pays gis nañ ne bëri na ay ministres yu fa bàyyeekoo euh, mais leneen li aussi euh, est-ce que équilibre boobu aussi jàpp nga ne lu sooxal si gouvernement bi am déet góor a gis nañ ne côté boobu aussi am na déséquilibre. xam nga gouvernement bi <clears throat> dañu annoncé woon euh, gouvernement de rupture. Mhm. c'est pas une première ñu di ñu annoncé des gouvernements de rupture. Mhm. mais boo demee ba ci biir doo ko ci fekk mais gouvernement bi dëgg-dëgg boo xoolee composition bi. da ngay xam ni niñ composé gouvernement bi matérialisé na rupture bi ñu annoncé ci anam yu bëri bi nga ci njëkk lim mooy amul benn ministère de souveraineté buñ jox un homme politique mhm. à part affaires te dinaa la expliquer li tax ñu war ko ko jox boo mhm. jëlee intérieur dañ ko jox un homme du sérail mhm. ancien patron de la gendarmerie mu maîtriser attelage sécurité ak renseignement te ñaar yooyu rek kay sécurité intérieure. Mhm. ñoo ci gën a am solo bu waaw renseignement sécurité. Mhm. gendarmerie moo ëpp li ñuy produire bulletin de renseignement ci table président de la république presque ñoo koy informer donc boo nekkee patron de la gendarmerie miin nga ñaari domaine yooyu. muy sécurité muy renseignement xam nga rouage bi. Mhm. xam nga yan. poste mooy des postes clés yoo xam ne des hommes fidel ñoo fa war a nekk facilement da am une main mise ci sécurité intérieure te dafa am solo ci nguur gu bees muy benn di opposé wu say opposant nekk ñu juge ci nguur muy benn nga dem armée dafa indi un nom de un homme de troupe mhm. ku miin armée bi la mais très social mhm. général un homme très très social bokk na ci généraux sam gaa yi nga xam ne bi ñu fiy jugee. Mm. soldats yi dañ ko doon regretter ci li liñ ko yéex a jot. Mm. dafa bëri lu mu réformer biir armée mais entre armée ak intérieur daal la mars mille vingt et un ci joué. leeral ñu xam nga général bii nii daan nga dégg ñu leex na la Ousmane Sonko avant muy génn am na généro yu wax ak ñun. an nga ko dégg du. balaa muy génn fan. en mars deux mille vingt et mm-hmm. général bii la woon. bu dee dëkk ba dal na cinquante pour cent yi moo ko ci lu ah mars. bu mu naan ndaw ñi bu kenn dem la gisanteeg Ousmane Sow. le général Birame. ne ko calmel booy am position bu am solo. ci génn réquisition gi ñu réquisitionné soldats yi ci mbedd bi. bu dee dëkk bi apaisé na joué na ci rôle bu rëy a rëy. c'est lui qui avait conseillé à Ousmane Sonko mu wax. gone dalalal da ngay génn mais waxal nit ñi ñu dal. jox ko garantie yu dëgër. ah man mi jëmoon xam na ko. jox ko garantie dëgër. mooy wane na ni moom il se fait pas manipuler par les politiques. Hmm. l' intérêt du peuple lay diriger. te loolu l' intérêt dans l' ombre kenn. Ah. sóoraale ko sax monsieur Sorola kenn moom mii la xam nga daan nga dégg nit ñi di ko naa hmm. naan la Ousmane am na. ñu waaw man déggoon naa loolu waaw général quelques jours après lañ ko wàcc. joué ci lu rëy rëy rëy. bu dëkk bi amee jàmm après médiation wu sëriñ fi jàppal ni moom mooy premier acteur bi. nekk un homme très social xam les hommes de troupe seen i bëgg-bëgg dana nekk benn tempon entre les généraux les officiers ak ñi nga xam ni mooy dirigeants yi muy président Diomaye di PM Ousmane nga ñëw justice ñu indi fa un des magistrats les plus intègres ci li ci ñun li ñu xam mhm. moom it wane ni il se laisse pas manipuler nekkul à la solde des hommes politiques plusieurs fois wane na ay position yu ute uteeg ay hiérarchie mhm. l'affaire Barthélémy Diaz la commencé l'affaire Ndiaga Diouf ca lañ ko fa jëlee plusieurs fois wane na. position mais Pape sax mos naa dégg mu témoigner ci moom. Mhm. mu ne jamonoy président Abdoulaye Wade joxoon nañ ko ndigal pour mu jàppul Pape Alé Niang. bëri na bëri na bëri mhm. commande politique yu mu yàgg refusé. donc mhm. c'est un homme bu xamit jafe-jafe fan la nekk. affaire étrangère mun nga ne foofu lañu indi militante mais c'est tout à fait normal xam nga lu tax. non seulement la dame. sa une femme bilingue. Yacine Fall beneen bi yàgg na ak projet bi xam na projet bi te affaire étrangère mun nga ne mooy porte parole lu président bi à niveau nu mu tudd au niveau international donc foog mu xam projet bi xam discours projet bi xam rupture yi projet bi bëgg ak souveraineté yi ñu bëgg a imposer niveau international histoire elle a été mhm. mhm. mooy jamono yi euh, mbir mi gën a jax mhm. mooy bi ñu wax Ousmane Sonko contre l'Occident ak nangam nangam islamiste ak yooyu noonu yëpp mooy mhm. elle a été reçue mhm. à l'Élysée si yooyu noonu et elle avait joué un rôle important mhm. ba sax après lu si topp diggante Élysée que euh, Ousmane Sonko am ba taxoon sax le président voilà loolu choix léegi yow boo amul profil boo xam ne xam na sa politique xam na axe yi nga décliné xam nga fi nga bëgg dem comme des fois problème yi ñuy am sa sa politique politique du président dafay am décalage ak le discours yi nga xam ne moom la affaire étrangère di tenir te ñaar warul am décalage dafa war a nekk benn bi. ministre affaires étrangères porte parole lu politique bu président de la république la war a nekk donc min na programme passif yàgg na ci xam na la mais beneen rupture bi jàllo mooy politiquement la coalition la parti politique ne pèse pas au sein du gouvernement loolu it beneen rupture la boo xoolee coalition bi ñaar fa dugg ñett te amu ci kenn koo xam ni di nga ne dañ ko fal ndax politique. waaw compétence. Mary Teuw Niane. Abdourahmane Diouf Abdourahmane Diouf Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Dièye Mamba Guirassy muy quatre. Mhm. ku ci nekk mënoon nga nekk post bi ñu la jox sans nga bokk ci coalition bi. donc dangay gis ni doone diw kat dañ ko tànn ndax ca coalition ba la bokk du politique. beneen bi même au sein de Pastef ñiñ fu dugal maanaam loolu nombre pesé wul trop politique moom. Moustapha Sarr la El Malick Ndiaye loolu rupture la. Mhm. donc dangay ngay gis ni gouvernement bi rupture yi la annoncé am ëpp na ko ëpp na ah, na ah ni waaw c'est vrai que matérialiser nañ ko au sein du gouvernement léegi nag yow Diallo boo ñëwee équipe bu bees amit mainmise ci sa sécurité intérieure maîtriser ko bu baax a baax a baax xam ñan nga war a dégommer ci yenn postes yi parce que am na des yoo xam ni ils toujours fidèles à leurs anciens patrons ñoon dañuy tëb sécurité intérieure dafa am solo nga teg fa ku mel ni général Tine armée nga indi fa un ancien général justice nga yóbbu fa un ancien procureur benn benn magistrat donc da gis ni yi gën a am solo te sénégalais yi di ko gën a jàmbat teg nga fa ay nit yu ko mun a maîtriser léegi nag li nit ñi di wax naan euh, maanaam séddoo ci région yu tolloo loolu jàll du fi lu bees loolu du vieille tradition nag quand loolu mi ngi commencé ci bi yenn zone yi commencé nekk électorat bu mag ci nga commencé dégg ñu ngi naan par exemple yaa ngi dégg ñu la wax ne la Touba gisuñ seen bopp ci attelage gouvernemental du premier gouvernement bu amul ministre bu dëkk Touba du lu ñuy tànnee ministre muy ñaar yooyu bokk na ci li ñu génne ci république gis nga jàllu république du couleur mhm. du tarixa mhm. du ethnie du diine du diine mhm. compétence la ak mën li ngay def ak am confiance ki la koy dénk gis nga euh, appréciation yi yàgg nañu indil ay guuta région nangam jotut ba ñu jox fa ku xamul dara te boo xoolee historiquement ñin tànn ci seen Euh, considération ethnique wala régional Diallo amul ci ñu qualifié boo xoolee parce que dañ xam ne li leen fa teg recommandation la duñ leen fa jëlee duñ liggéey. pour équilibrer waaw luuxu yi nga mës a dégg yëpp ci gestion yi presque ñun tànn ci choix yi non. la fa duñ la fa jëlee boo lekkee kees gi ki la fa teg moo lay protéger. donc Sénégal bokk na ci rupture gis nga loolu la fekk mu am ba ñëpp gis ko bokk na ci rupture yi ma gën a neex waaye rawatina. ba ay minute avant ñuy génn gouvernement bi mbindeef mënu la waatal na la lii mooy liste hmm. gouvernement bi. wala diw sàngam forcément ñaar lépp leen verrouillé Abdoulaye Babacar remaniement daraan am nga toog sa kër. Hmm. deux jours avant yëg ni diw day dugg. xam ne parce que x ou y recommandé na ko. wala liste ba fuite na. <laughs> wala ñu nekk biir présidence génn nañ ko gis nga bokk na ci chantier yi gën a mag ci président yi moom ak son premier ministre muy Ousmane Sonko xam nga lan la. fexe ba peegaat l'état fuite yi amoon ci régime bi wees nga xam ne président Macky Sall day toog léegi di signé balaay daaneel <laughs> mbedd bi yëg li muy signé lan la loolu du sécurité réew jàll mhm. réew dafa am loo xam ne secret d'état la warul nekk luy taxawaalu parce que loolu bu daanoo rek mitu état daal mitu état dañ na bu mitu état dañee li xewoon mooy xew mhm. mooy un procès en plein direct PV yi nga xay am ci Facebook xam nga Sénégal am na yu fi am yoo xam ne nit ñi taxawuñ ko mais lu jaroon taxaw la Sénégal gis nañ fi procès boo xam ne PV en direct ni avocat bi di laajee lañ koy am sur Facebook. waaw audition. est-ce que xam nga ne la l'affaire aji Sarr <laughs> PV yi fuité est-ce que xam nga parquet la fuité wul xam nga loolu. <laughs> laajal lu tax ñu xëy bi jël ay greffier mutilé parce que boobu defoon na débat fan la mbiri fuite ni ñu bëri dañ jàpp ni ñi doon section de recherche les activistes yu nekk si biti ñoo wax nañ jàpp ne sa section de recherche la fuité jamais ki ñu wax ne non Diallo gis nga yaa bokku audio yi ñu doon tudd li ko génn du ci biir la génne audio te fañ ko war a ki yoroon audio yi man wax nañ mu ne ma audio joxuma ko kenn nan laaj ca fan la audio yi réew bu amul yenn maam yenn sécurité li ñuy wax secret d'état jàllu mitu état dafay effondré réew mooy dañuy tànn nit parce que man xam naa maire bu ñu waroon reconduire ci lis mu daw benn kër sëriñ na dañ ma bëgg jëlee foofu parce que fi ma def maire d'accordul ñu naroon def pression pour changer nit moo ko génn fiitu ko ne leen diw mi ngeen bëgg a seen mairie dem na kër sëriñ diw ñu ngi koy waaja tegaat seen kaw nga foog ne loolu réew la ak respect mun munti am nag ci kilifa diine xam nga man moom du ma bokk ci ñi nga ñi kilifa diine. Mhm, fa nga bokk sax man fa laa juddoo ñu yar ma màggal ma. mais dadut yoon état dafa am état. leneen di leneen foo séparer les deux bi ñu ko boolee ba tey on a un sérieux problème dans ce pays. mais ces dernières années sax dañoo politique diine yi. non dañ politique yi diine. ba pare yàq lu bëri mais loolu moo indi tey benn sentiment de refus bi yenn taalibe yi am ci yenn programme ay cérémonie officielle bëri na taalibe yoo xam seetaanatul cérémonie officielle parce que ce qui se passe doonatul programme ba c'est politique. ay li ay tour lañ fay tudd. ay tour rek ay gaaruwaale c'est autre chose. maanaam dañ dem ba bëgg génne li sacré ci événement yi li taxoon na dem nit ñi dañ dañ mel ni dañ ko ci bëgg génne politique daf cee feeñ de trop. ci discours yeeg ci lépp li ma gis daal mooy en terme de nombre tamit gis nga rupture on est passé de 43 ministres. à 25 à 25. waxuma la nag ministre mais président Macky Sall nag premier gouvernement bi nag. 30 Abdou Mbaye 30 bii tam 30 la waaw 30 ministres. 30 ministres pas pas waaw mais bii moom boo si boole secrétaire d'état yi da ngay am 30 de. jël ay ministres ministre conseil ministre conseil ministre conseil moo wàññeeku. moom daanaka ministre conseil 2012. ak 2013 ak 2014 nii la doon def. mais mais am na ministre conseil yoo xam ne musuñu dugg palais. Mhm. lu dul jour bi ñu leen joxe seen ordre de mission. ministre conseil tamit yu musul am compétence. yu musul am benn compétence am nañ ñoo xam musuñ gis ki ñuy conseil <laughs> musuñ ko teg bët. xam nga ah, yooyu am na ñu naan ay mail la ñuy bind quoi bu ñu xalaatee rek dañuy bind mail. xam nga yooyu yooyu yooyu bokk na ci yàq état bi. Hmm. donc état dafa am lu muy jëmbal. dafa am fu mu war a féetee ba askan bi ba ko xel léegi nag beneen rupture bi sénégalais yi di xaar mooy ci commune joxe nañ benn délai ñi ngi xaar xool ñan ñoo koy respecté boobu tam dinañ si ñëw boobu beneen boobu beneen mbir la sénégalais yi bëri ñi ngi ciy xaar le premier ministre en personne il est maire de Ziguinchor ñu ngi koy déglu di ko xaar son ministre euh, du pétrole. du pétrole Birame Souleye. waaw bii mooy troisième fonction am. ñu koy xaar. kon moom war na bàyyi ñaar xanaa Birame moom dootuñu waxaat leneen. non Birame ba ñaar. ñaar lay parce que dina bàyyi mairie bàyyi député. donte mairie bi sax. man je suis pas trop d' accord man mairie bi man d' accord ma. mais bu Sonko bàyyee Ziguinchor kay kenn du teewut si mairie. waaw mais xay dina ko bàyyi. si li ma gëm. assemblée dana ko bàyyi. c'est nag Sonko gis nga bi mu yegsee ba ci fànn boobu. dafa ah. changé ton changé visage. waaw. Ah. dafa ferme bi muy egsi ci président bi nee na. ñaari weer la leen may ngeen tànn benn weer moom da lay benn weer benn weer la leen may léegi nag pour ngeen teg même délai passation de serment yi gis nga lundi lundi la ñu tàmbali passation de service waaw léegi nag am na des visages yoo xam ni dugguñ c' est à fait normal laaj nga ko léegi Babacar ñu bëri dinañ laajte lu tax dugguñ mais bu ñu fàtte ne état du ministre rek ministère yi bëri na ci direction yu amaam solo yoo xam ne presque ñoo ëpp liggéey sax que le ministre. waaw ay port APIX non biir ministère yi. am na ay direction yu mel noonu. Mm-hmm. nga door ñëw ci yeneen direction yu mm-hmm. mel ni poor APIX ARMP ASEPEX. Euh, bëri nañ bëri nañ direction mm-hmm. yoo xam ne mais. ñoom DER ak ñoom ñëpp. ay DER ay FONGIP wala yooyu tëb na léegi. ñu ngi fi de FONGIP ay ONFP. ONFP. bëri nañ de ASEPEX. Euh, mais ñoom nee nañ dañuy kii ñoom. apix euh, fële apix bëri na direction yu bëri yoo xam direction yu am doole la léegi nag ñu nga xool ñeneen nit ñi fan la dugg en tout cas man li ma jàpp mooy képp koo xam ni réew mi moo la ñor réew mi nga doon xeexal buñ la falee comme buñ la falut li am solo mooy ñañ fal réussir loolu moo am solo léegi nag ñu ngi xool en tout cas li ñu waneegum xel tey na wane nañ ñu jiital du appréciation politique du du vouloir servir son parti wala sa coalition parce que ministère u souveraineté c'est une première an ñu joxe ku ni à des non politiques loolu nag lu amam sol parce que ministère yooyu mun nga ne mooy état mhm. nit ki su ko joxee ñeneen ñu dul politique rek mooy ci lim jiital du ay calcul politique mhm. waaw vraiment d'accord mm. maitre oui euh, Ousmane Sonko premier ministre kañ lay bàyyi maire bu Ziguinchor ndaxte wax na ko